ana situation bi nu mu fi demee. waaw daanaka fukki fan moo ci des mais situation bi ni mu demee mooy wax dëgg yàlla ñoo ngi fii ci wàccaal yi defar di xaar clients yi ñi daan ñëw ñi ngi ñëw am na ñoo xam te ni wax dëgg mënoo gu ñëw ñëw ndox dëkk bi ah, li ma ci wax mooy fi mu nii bariwul bariwul xar bariwul xaalis waaw xar moom bariwul gaa mais xaalis it amul te it bu xaas amee moom day gën a wér. ndax bu moom pour nga am mën naa yomb mais bu xaas amul xaas amut day métti te day métti ci borom kër yi te wax dëgg say xar di ko jaay war a tax nga ñaan xar manqué li ma gën a bañ. parce que su xar yow boo yow yow léegi yow boo jàppee lijjanti sa bopp te say mbokk lijjantikuwul amul sens kon dañuy ñaan xar am xar yomb jàpp nañu ñun xar éleveurs yi xar yu jafe mooy suñu enrangement mais loolu arrangé wuñu xar yu yomb nga jaay say xar dem na ci leneen daa ëpp sens nga téye fi xar yi moom bu kenn xamul di fere jëmale bu kenn xamul ndax boobu léegi fere yi day taxaw te it aussi yàgg fii fii amul sens ci ñoom noonu la ci dem mais wax dëgg yàlla daral bi moom ça alhamdulilah amuñu fi benn jafe-jafe wax dëgg yàlla moom macha allah amuñu fi benn jafe-jafe ñu ngi ci jàmm te it di ñaan sama borom doole jàmm ji sax. ndax maanaam manifestation yi fi jaaroon wax nga ko léegi tax na peut ñenn ñi. am peut être lu ñuy ragal ba tax euh, ñëw ñu weesoo loolu ndax dafa am leneen lu waral raara raarati xar euh, man loolu moom yàqul sax élevage bi kese dëkk bi la yàq ndaxte nit ñi liggéey ñun bari na ñoo xam ne ñu liggéey ci yeneen branche yoo xam te nii seen i client mën ñoo ñëw Sénégal ndax manifester yi loolu bari na ndax man coordonné laa xam naa ci dara moment bii laa fi nekk sama pare dama delluwaat sama métier. kon donc bari nañ client yoo xam te ni xalaatu ñoo ñëw lañ lay wax da nga ko nga woon mun la xalaatuma ñëw ndax sama jëkkër moo bàyyi kenn la jëkkëram di bàyyi mu dem ci ci ci nii kon donc loolu yàq na lu bari en même temps tamit même ak ñi nga xam ne dañu leen xam di jëflante da nga ci woon kañ ngay ñëw mun la non man moom fii laay jaay waaye duma ma ñëw Dakar ba mu ci guddi rek mu woo naat ñoo xam te nii samay nit lañ ñu ñoom duñu ñëw Dakar kon donc duñ ñëw Dakar yi fi dina gën a métti Dakar man fa say li mu yàq bari na torop sax torop l'allongement. bu ñu sukkandikoo keroog ci premier ministre nekk itam ministre de l' agriculture euh, nañ ne xar yaa ngi xar yaa ngi dugg si ndax léegi yéen yéen a koy nemmeeku xar ñu ngi wàcc wala. xam nga ministre yi moom léeg-léeg waxe seen xalaat ak seen yaakaar kese dañuy waxe seen xalaat ak seen yaakaar mais mën nañoo wax ñi ngi dugg si te duñ gis camion bu dugg ndax xam nga bu fekkee da nga fi daan ñëw dara bi nam daan mel ak ni mu mel nii am na différence heure daana fekk bu fees dell ak xar mu mel nii oto yi di fi jaar vaillé vingt kon différence bari na mais ministre yi bu nee xar yaa ngi ñëw xam nga ministre yi moom bu nee naa gis ñaar ka muy ñëw te mun ngi ñëw na waaye nag ndax nañ nañ ñëwee ni nañ ñëwee te aussi xar yi nag bu ñu bëggee mu yomb it ñoom it nañu yombala nit ñi ni xar yi di duggee di yombalee nit ñi tam sart yi waaye bu yëf yi méttee ci ñoom wax dëgg yàlla ak fere yi ni muy mel si ñoom it ñun ñu lool waaye xam nañ ñoom la ñuy dund métti na naa ñun ñuy dëkk ci dëkk bi di baas fii suñuy kër ne fii li ñuy fere ñoom ñu jóge ci àll li ñuy fere wax dëgg yàlla te lépp nag la nga xonte la nga fere lépp ci client bi nga ko bëgg safaal kon loolu day métti ci client yi te loolu état bi moo ci war a jàpp pour mu yomb ci client yi aussi tamit. njëgu xar yi tey fii par exemple ñaata la tey yéen seen xar fu mu commencé ak fu mu toll. waaw ndax fi même fii moom suñuy xar moom li fi gën a yomb yaakaar naa ni deux cent mille la am na fi deux cent cinquante am na fi trois cent am na fi lu ëpp trois cent ndax xaru cinq cent mille sax am na fi xam nga mais nit ñi dañ naan xar dafa seer dafa seer dafa seer. am na ñoo xam ne man am naa ki nga xam te ni woo na téléphone man bu 300 mu bu ndaw ci man dégg kooku ne bu 300 am xam ne bu sax day métti ci ñoom mais yëf yi tabaski la maanaam sunna loo soo xamante ni war na ñu di ko def wax dëgg yàlla gaañ sa bopp mën na cee ñàkk te ba nga ko jëndee di xontu xari ba ak fii parce que saako repas ba demee bay jar 8500 ñu dem ba saaku repasse bi di jaraat seize mille cinq cent xam nga différence boobu bari na saaku ngooñ di jar six mille francs nga bëgg a yeew xar mu koy lekk tous les jours xëy un bon jour ba pare nga bëgg xar bi yombu loolu mun da nekk parce que xont mun da seet xar yomb loolu mun da nekk te bu dul loo tam xar moom moo noppee yomb Sénégal waaw xar moom pour mu yomb Sénégal moom yaakaar tuma ko parce que fu mu ne nii xont bi dafa seer te defuñu benn effort pour mu wàññi ko kon daa xont bi day gën a seer kon xont bi mun a gën a seer xar di wàññeeku kon xar yi gën a seer parce nag xar yi nga yor li nga ci dund ak ni nga ci ak ni nga ci dundee noonu ngay jaayee boo jaayewul noonu boo jaayee ren bu demee ne doo jaay de noonu nay seet dundee. donc comme affluence mën nañ xaarandi peut-être kon dernier jour yi euh, xar yi gën a bëri client am gën a nag risque la man ngaa dem xar gën a bari waaw alhamdulilah yàlla na mel noon nag xar bari ndax borom kër yëpp am xar waaye boo dee ba doon xar amul nag fu muy fu fu mu jëmaat te boobaa xam ne état du war di jox kenn xar waaw liggéey bi métti na mais nag li gën a garaaw li ci gën a yéeme mooy am na loxom xam te nag état mënut lépp waaye nag it bari na ci loo xam te bu ko bëggee moom moo ciy dugal loxoom jàpp ci bu baax ndax am na loo xam ne état mën na ciy dugal loxoom te it du agsi ci ñun xam nga am joxul ma diw man nga am joxul te boo ko saytuwut kan nga ne wax am joxul ma koo bañ a jox kooka tey am na loo xamante nii faa yu bëri yoo xamante nii noonu lay demee ci état rek day def loo xamante nii fa jaar ña ko moom duñ ci jot mbaa ñoo xamante ni dañ jox téeméer ka nga yónnee joxe juróom fukk ya juróom fukk yi ay quelques personnes bu ko séddoo sëñ yooyu mooy mooy mooy mooy bëri ci dëkk bi waaw te duñ ci bàyyi xel di joxe xaalis nag mën na saytu xaalis da koy gën état bu defee loolu pare pour mu saytu loolu moo war a gën Euh, sant nañ nag bu baax a baax maa sant maa ngi la nuyu bu baax a baax euh, fi mu waaw maa ngi la delloo siyaare bu baax a baax Jibril Ka Jibril Ka waaw Jibril euh, ñu ngi mën naa ne fukki fan wala lu ko néew moo des ci li nga xam ne moom mooy tabaski bi ñu ngi leen fekk fii ci daralu stade Léopold Sédar Senghor bokk na ci daral yi gën a mag ci Dakar amitié waaw ndax mën nañ xam fi mu nekk nii fi ngeen toll ci jaay bi kam bu ñu amoon sum saaga ñoom am yu doy xam nga ñun ñi nekkoo si kii si si mbedd mi amuñu géddu amuñu dara ñun dañ jaay suñu carte yi yi ay waloor kaalis lañ yu bëri dégg nga njëg bi sax euh, wax dëgg yàlla xar yi ñu ngi suur pul yi kont nañu yu ba mu suur ba ñu sif ko ba fii loolu yombut lu tax ñu def loolu pour kenn ku ne ñu mën a gis boppam àddina bi nag fii la tourné jamono bi fi mu toll nii dafa métti waaye dañ wàcceem ni sa carte sa mbedd yow yaa ko mën a garder ñaari fan ñetti fan wala boo juróom-ñetti fan boo yàggee da soon sonn doo dégg loolu kam waroon na am sécurité yi ñu xam ne nii kenn ku neñ def ci li mu war a def sécurité man manqué kon waaw xaw ma nag duñu mag de waaye fii kam am bëriwul sécurité waaw man de gisoo fii sécurité ba mu ñëw fii xaw ma ndax dañ nekkoo si ko mën na nekkoo si ko ak kaw na man fi ma nekk nii di kam man maa garadal sama bopp bu soo loolu ndax da yeneen jafe-jafe fii ci bi jafe-jafe bi bi de bëriwul sax jawaab bi jafe-jafe bi kam jaajëf bëriwul lu dul booy nga am xont rek yaa ngi defaati ni wala ay leneen ay leneen waaw loolu kam il faut mu am waaw. waaw njëg bi kam wax dëgg yàlla gaa yi ñu ngi jënd ndànk-ndànk séeguñu tàng nag lool wante ñu ngi jënd ndànk-ndànk. mu ñaatee si njëg yi noonu xar yi yéen seen xar fu mu tàmbalee ak fu mu yem. ay fanweer ñu ngi jaay ñaar fukk ak juróom-ñett ñu ngi jaay ñaar fukk ak juróom-benn ay fanweer ak fanweer ak juróom ana tàndaa rek. yi ñu ngi ñëw ñu ngi ñëw ñu ngi ndànk-ndànk waaw yaakaar naa daal dañu baax waaw sëñ bi maa ngi lay naa ngi sant yàlla baax. Ah, tur bi naka la. man Ibrahima laa tudd. waaw Ibrahima ñu ngi leen fekk fii ci dara daralu euh, amitié bi nga xam ne bokk na ci daral yu gën mag ci ndakaaru euh, fi mu nekk nii tabaski bi nag daanaka ñëw na semaine ak lu topp rek kon moo ci des ana naka la fi euh, mbir yi taajoo fi mu nekk nii. ah instant bi de moom mu ngi sedd xar yi nag am na nag mais instant moom affaire bi moom prix amagut lu ñu gën a sonal ndax ba xaw ma waa mairie xaw ma lu ñuy wax daal fii waruñu taxaw fii waruñu jaayee fii te lii ay fan lu gàtt rek la yaakaar naa ñoom war nañoo muñal rek ay di jours moom war nañ ko muñ te aussi boo gisee ñu indi fee xar yi pour population bi moo tax ñu indi xar yi su fekkee nag ñoom tamit ñi xatal si euh, tey doo leen taxaw fii taxaw leen fële dem leen fële wàcce leen fële loolu tamit il faut gars yi seetal ko si baax ñu seetal loolu rek mooy suñu jafe-jafe bi nii nii nii. ngi ñëw. waaw ñu ngi ñëw ndànk-ndànk ñu ngi ñëw ndànk-ndànk waaw mu ngi new ndànk ndànk de waaye na bu gënoon yokk moom moo gën instant bi moom mu ngi xaw a sedd tuuti euh, ren ñu ngeen euh, am nañu commencé jooy seeraayu xar yi ren yéen bu fekkee seen xar la fu mu tàmbalee ak fan la yem waaw ah, fii dañu ngi jaayee fii ba ba soixante-dix ba quatre-vingt-dix ba cent waaw lu xar toll rek fu mu toll rek xar fu mu mën toll am na ay cent vingt cent trente ba cent soixante yemul fenn daal waaw foofu xar toll rek hmm, loolu de fi nekk ren dañoo gis maanaam niñ doon ñëwee euh, at yi passé ren dañoo gis ne daal ñëw bi dafa xaw a wàññeeku lu waral lool. waaw ñëw bi moom wax dëgg yàlla dafa wàññeeku xam naa ni programme bu ñu doon baax rek affaire xaw ma xaw ma seen ki affaire xaw ma affaire waaw xaw a ragal gaa yi tuuti loolu moo xaw a ragal gaa yi mais moom ren moom xar bëriwuñ fii moom fii doon fees dal ay xar mais ren moom xar yi bëriwuñ wax dëgg yàlla amoon taxaw sax moom taxaw sax amuñu ko woon waaye sant yàlla rek sant yàlla bu yaakaar ngeen ne maanaam incha allah di ngeen a indi di ngeen ko kii wala da prévoir indiwaat. waaw lu nekk de yaakaar nañ dina jeex moom yaakaar nañ ko de fi nekk moom yaakaar naa dina jeex tak tak tak tànk moom xar bëriwul noonu te xam naa ne moom yaakaar naa gars yi dinañ jënd lépp dinañ jënd lépp waaw ndax léegi-léegi xar yi nga gis nii nii nii benn oto lañ ko chargé yëpp jënde ko benn yoon mooy xar yi nii ëpp naay cent xar yu teg léegi-léegi lañ ko jënd eh, aussi ñi jënd jaayaat